Gueye laa tudd di Baye Fall Khalifa Sall fii ci département Guédiawaye man nag maay la coordonnatrice départemental du mouvement ADECAR ADECAR soo ko déggee mooy ànd dooleel Khalifa Ababacar Sall man aussi Manu Fall la coordonnatrice du parrainage au niveau aussi du département de Guédiawaye mais laata loolu aussi def nañ fi def ay jéego nek naa fi coordinatrice de Manko taxaw Sénégal ñu ne def nañ fi bëri d'initiation initiation yi d' yi nga xamante ne yaakaar naa jël ma fa jaar ndax gis nga ko te fekkee nga ko nekk nañ fi aussi ñun ñooy le les premiers ñun ñooy les premiers je pèse bien mon mot xalifis yi nga xamante ne ñoo njëkk def caravane de sensibilisation pour la libération de Khalifa babacar Sall le 2 avril y compris seen naataango yi nga xamante ne jàppoon nañ leen mooy ñoom Bira Kane ñoom Cheikh Tidiane Sall ñoom Bamba et consorts et eh, on avait plus de 3000 personnes dans le département ñun ñi nga xamante ne ñoo ngi fi di xeex depuis 2014 te tey lañu gën a engagé tey lañu gën a déterminé ci nga xamante ne mooy euh, le combat de Khalifa Ababacar Sall. mais ci combat boobu ngeen nekk tey combat bi dafa mel da ngeen échec ndax Khalifa ba ngeen dalee xeex yàgg pour mu génn te tey dañoo xam ne keroog rek euh, cassation moo ci des.

donc ñun suñu combat. doon nañu accusé de. non man je pense bien mes mots je dis les choses telles qu'elles sont xam aduna Sénégal dañu tollu fi nga xamantene moy politique bi nga xamantene Sénégal yi dañoo war conscient. si nga xamantene ne moom am Sénégal dañuy wara conscient képp seen ba di xol parce que tey jii dañuy naan politiciens yi dañuy wax ni dañuy wax ni dañuy wax ni dañuy wax ni mais parfois aussi il faut regarder l'évolution des choses Khalifa Ababacar Sall ba ñu ko jappé ba légui tey jii ñoom amuñu benn preuve tangible ca commencement ba laataa ñuy dem lañu de di salfaatoo seen ak ak yelleefam tay di xolal li premier instance waxoon mom le deuxième instance waxoon teewul deuxième instance ba mu ñëwee muy court appel dafa né carrément enquête préliminaire bi nga xamante ne moom la ñu woon

mom lu ko neex lay def. ko lay maam kon ni ñu doon wooyee keneen nga ko bëgg a moy moy mooy ma partout bu dee loxoom mu ngi fépp nekk fépp mais bu ñu la waxee président de la république du Sénégal trois pouvoirs moko moko moko entouré muy le pouvoir judiciaire le pouvoir euh, législatif ak le pouvoir exécutif mais su fekkente ne loolu yépp moo ko dank téy ko moom ko di ci def lu ko neex kooku buñ ko woowul maki partout lu ñu koy woowee mooy Macky partout. tey jii assemblée nationale wax ji wax fa nekk mais lu mu fa bëgg moo fay am parce que il est la majorité sàcc na ba dem assemblée Dakar ñoo ko dem assemblée yóbbu fa majorité lu ko neex def mais askan gi nag laay pointe du doigt ñoom ñoo war a te xam dañ ko fal pour mu mais faluñu ko pour muy buum doomu jàmbur tey da ngay xool li fi nekk ci opposition kan ma mën a jàkkaarloo ko Macky Sall mais ces potentiels candidats yëpp jëm na leen écarté di def lu ko neex di def ak bu ko neexee.

yéen gëm ngeen khalifa da fay ñëw nek candidat. mais Khalifa lan moo ko tere nekk candidat. léegi kan mooy seen plan B. ñun amuñu plan A amuñu plan B amuñu plan C ben plan la ñu am muy Khalifa ababakar Sall ta parrainage bi incha allah département Guédiawaye dina am plus de 5000 signatures teg ko ci table bi ndax Khalifa Sall do tous Khalifa Sall c'est un esprit te un esprit yaakaar naa kenn du ko tëj un esprit il est partout c'est un esprit c'est l'aimé et l'élu du peuple sénégalais loolu il faut que aussi Macky Sall conscient de cela. xam ko tànnal boppam c'est un candidat c'est une demande nga bi xeex bi yëpp ragal kese la ragal kese la. Euh, léegi xam ne tey yaa yore parrainage géejuwaay bi foo ci toll à bi. instant bi ñu ngi ci parrainage bi d'ailleurs sax bi nga ñëw gis nga dafa am loo xamante dafa am solo lu ñu di wax naan ku ñëpp xam foo jëm doo yegg.

aujourd'hui au niveau du parrainage nous nañu nous fi ñu toog nous nommé mais nous partir à la base choisissez un représentant pour le parrainage base nous ñoo choisir. Ça veut dire que base boobu toog ils sont prêts à aller à mouiller le maillot pour avoir le maximum de signature pour Khalifa Ababacar Sall ñu nag ñu ngi ci liggéey bi saa ñu xëy ñu ngi porte à porte ñu ngi dem ci marché yi ñu ngi wax a askan bi te incha allah daara ñu am plus de 5000 signatures dans le département de ndax moom wàccee a bi loolu nga ma njëkk wax na ma doo ma jox sa carte d'identité ma pare nga ma njëkk wax de xam naa am yaay ci xeer léegi en tant doomu Géejawaay yow ak administration Géejawaay mairie Géejawaay lan ngay wax ci loolu yaakaar naa sama wax du ci bari parce que bi ñu demee ba jugee ci 18e siècle dugg ci 20e siècle daal di waaj a jàll dañoo ne dans un peuple pour que la démocratie puisse émerger dans un peuple askan bi dox il faut mu am une gestion participative maanaam di déglu askan bi dénk leen seen nopp di def li ñu bëgg tey ji boo seetee Guédiawaye yow da nga toog ba seet man je me pose la question à savoir est-ce que Guédiawaye am na maire. nous avons benn maire boo xamante ne c'est un maire événementiel politique ba politique moo ko fi indi politique ba politique moo ko fi indi jot xaalisam nag fu ne mu dugg fa fu ne mu génn fa politique ba politique moo ko fi indi aujourd'hui da tax na ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy yeewoo géejewaay ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy doomu géejewaay ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy xëy di dem marché ñun ñooy xëy di dugg ci oto yi ñun ñooy xëy di wàcc ci tali bi ñun xam nañu carrément li métti nan la il est temps aujourd'hui lu ñu nekk géejawaay suñu sool jël ko entre nos mains ñu ngi nekk géejawaay ñun ñoo war a def une gestion bi nga xamante ne luy sukkali suñu askan ñun la parce que ku nekk fi nga dëkk yaa xam dafay metti yaa xam dafa nekk jàmm bu mu ñëw di carrément xam sa mbootu ginax ginax bi nekk sa kër lu nekk géejawaay waa géejawaay ñoo ko xam te waa géejawaay ñoo koy dindi élection locale yi ñëw que doomu géejawaay toog ci dëkk bi mën a doxal géejawaay mën na nekk ku nekk ah

moi que yéen ñi nga xamanteni ne yéen a dëkk Guédiawaye duma leen ne kaay leen ngeen parrainé Khalifa Ababacar Sall mais choisissez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut choisissez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et ayez conscient que yéen vous êtes le devenir de demain nous tous nous sommes des jeunes et conscience que dëkk bi suñu bëggé mu dox ñun ñokoy doxal donc faites le bon choix loolu laay am lu may wax parce que ba pare gëm leen seen bopp. lay wax ci info je vous remercie c'est un groupe de médias c'est des jeunes talentueux mais je vous encourage parce que aussi ça fait partie de l'émergence du pays des jeunes qui le aussi ça fait partie du développement c'est à et je vous en félicite